ziar naa la kooku jëli jëli wasaare la. yaa gën a jafe président daal. bàyyi li ngay wax nekk si liggéey rek. de bëri doo leen gis doo leen dégg la ma doxul duñ dem duñ demaat dëpp gënnaar yére yi te ah, loolu la rek moo tax ñu ñuy gëj a gis mais du du dara nag. Mm. waaw du dara. yaa ngi am kanam maa ngi ñëpp di nuyu suñu grand fi nekk ñoom ñëpp ah. mm. waaw lu jëmale làmb kanam rek moo ñu fi indi. waaw ñun lu jëmale làmb kanam vraiment suñu ñu si parce que mooy li ma wax suñu fi Balla Gaye fi mm. Eumeu Sène ak ñoom Modou Lo ak ñoom Gris Bordeaux ñoom ñëpp ñu ngi fi. tey bu fekkee ñoom ñooy suñu kilifa nekk fëtuñ fëruñu kaw bu yàlla defee ñoom ñu toog waxtaan ba woote kon dañ da am lépp war a bàyyi ñoom wuy si leen ñu déglu lu jëmal làmb kanam lu jëmal làmb kanam rek bëgguñu. jërëjëf waaw maa lay jaajëf jërëjëf